yaa xayra dayfin ataa bil bishri wa sahlan wa tarxiiban ak salaamualeykum wa rahmatulahi niñ ko baaxoo ànd ak yéen ci waxtu ne ci saasu ne ci fii ci jumaay Touba di ci faral di fego ak kuréel yu fasante ko ci biir dëkk bi ñoo xam ne tey jullit lañu doon. ay eh, taalibi Serigne Touba la ñu doon am wàccuwaay bu ñu am ci dëkk bi am liggéey bu am solo boo xamante ñu ngi koy def fii ci jumaa ji eh, feggoo ci ak daayira Muxaddamatul Xidma tey jii nag ñu ngi fi dalal kuréel bu am solo ci dëkk bi nga xam ne ba nga naan balaa nga naan naam da nga fànne balaa ngay mën a jaamu yàlla da ngaa wér muy kuréel bi nga xam moo lëkkale pharmacie yu département bu Mbàkke sëñ Mor Diagne ànd ak délégation bu takku boo xamante ni kilifa yi yi ngànk loolu lépp ñëw nañ fi ñu am kaddu yu ñu bëgg a joyal bi nga xamante ni déglu nañu waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom lañ dégloondoo ñun ñëpp ginnaaw itam ñu ñëw fii bokk bokkandoo ak ndogu euh, te ñoom sax euh, liggéey ba am solo ñu ngi koy def ndax chaque ajjuma benn pharmacien dina ñëw monte ci biir jumaa ji ci euh, ki infirmier bi nga xam ne moo fi nekk am garab yu am solo yoo xam ñu ngi koy baaxee taalibi Sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba yi ngir ñu mën a taxaw taxawaay bu am solo ci jaamu yàlla gi ñuy def incha allah loolu nag muy liggéey bu am solo ñoom nag ñëw nañ ñëwoon nañ seen bopp tey génn jëmmal taxawaay boo am solo boo mu xam ñu ngi koy taxaw sëñ Modou Diagne bi ginnaaw bi ngeen dégloo waxtaan wi euh, fekk si li nga xamante moo di ndogu li euh, visité li nga xamante moom ngeen fii faral di euh, indi mu am solo lool lañ bëggoon nga yëkkatee kàddu yoo xamante ni da koy jëmale ci li nga xam moom nga jàngat incha allah sëñ Mor. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi. sant yàlla di julli ci yonent bi di sant suñu wasila suñu sëriñ Cheikh na Cheikh Ahmad Bamba euh, di rafetlu nag euh, jataay bi di jéggulu yit kàddu yi ñu fi nar a yëkkati ndax xam naa ne ay kilifaa fi teew euh, yëkkati ay kàddu dina diis waaye nag lépp ci ndigal la man nag maa ngi nekk pharmacien di jiite kuréel gi nga xamante ne nii moo lëkkale pharmacien yi ci région de Diourbel maa ngi fi ànd ak benn délégation bu am solo nga xam ne docteur Adjuma Diouf mooy secrétaire général euh, regroupement bi docteur Djili Thiam mooy président commission euh, sociale bu regroupement bi ak docteur Modiane Faye di président commission scientifique bu regroupement bi kon euh, ñooñu ñooy nekk délégation bi nga xam ne ñooy représenté tey pharmaciens yëpp ci ci ci région de Diourbel bi waaw di santaat di gërëmaat sëñ Abdoulaat Bousso ci laabiyeeram ak vraiment oyofam ak ci ak yaatoom ci la ñu ubbil bunti Muxaddamatul Xidma di ñu xiirtal ci liggéey bi di ñu ci di ci di ñu ci euh, teg ay ay ay ay mission yoo xamante wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla sant ci Serigne Touba sant ko ci ndax liggéeyub Serigne Touba la boo xam ne moom moo ñu ci boole. yàgg nañ cee bëgg bokk te amuñ bunt buñ ko jaaree moom mooy bunt bi nga xam ne ci moom la ko yàlla jaaree ñu ciy sant yàlla nag di ko ci sant bu baax ndax vraiment nit ku yaatu la. ku oyof la ndax yaatu mënul eh, eh, weesu nga am loo xamante ne xëy na mën nga koo def wala nga def loo ko ñeneen waaye nga boo ubbi ko ba ñëpp mën ci jariñu loolu nag eh, jikkoy jullit la ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm ginnaaw bi loolu weesoo ñu ngi santaat yàlla ci may gum ñu may ñu fekkiwaat at woo kooru 2024 bi ba ñëwaat ci invitation bi fii ci jumaay Touba ndaxte ci weeru koor wi yëpp lu am solo dañ koy def fii ci jumaa ji maanaam bu ñu jul sëlmalee takkusaan ñu def waxtaan woo xamante ni dina delloosiwaat nit ñi eh, jullit ñi taalibe yi ci seen diine fàttali leen lu baree bari xëy na ñi nga xam ne fàtte nañ ñu xamul woon mu xamal ñu xamal leen waxtaan yu am solo la te waxtaan yi amul rek ci enceinte jumaa ji ndax dañ koy tasaare yu daaw yu daawaat jeeg yu tout le temps nit ñaa ngi koy déglu di ci jariñu loolu nag yaakaar naa njariñ la loo xamante ne nii day dem ba ilaa yow mi labat ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm biñ ca jógee ñu gis nañ euh, waa mu xaddamatul xadma ñu ngi defar defati liggéey bu am solo ci weeru koor gi euh, liggéey boobu mooy di dogloo ay téeméer wala ay junni nit ci fii ci jumaa ji te ñoo xam ne xëy na euh, suñ ko yaakaaruñ ko woon feneen waaye buñ dikkee fii macha allah loo nga xamante ne nii lépp ab jullit dina ko yittewoo ci ndogam pour dog dog bu mucc ayib ginnaaw bi mu wooree dina ko fekk fii loolu nag ci seen pasteef la ak ci seen farlu ak ci ndimbalul yàlla suñu borom ak ci baaxu cheikhul xadim eh, yombalal leen ko ba ñu koy defee noonu ñu ngi leen di ñaanal yàlla lu luñ ci def ren bu dewee déwénee ñu def ci lu ko ëpp luñ ci mën ren bu dewee déwénee ñu mën duubal bi te lépp lu ci yàlla diggee ci fay yàlla na leen ko yàlla fay te fulal leen ko ndax euh, ku ne dégg na li yonent wax ci ku dogal benn jullit bu woor waaw donc ku ko def am nga ku euh, yool bu tool ne ki wooroon te du ko yàqal ci woor ko ci yoolam dara nga dogal ci nag ay ay téeméer wala ay junni loolu yool ba suñ borom rek xam nu mu toll loolu bu ko yàlla fayee moom waxuma la ñi koy def waaye képp koy jullit ci àdduna rek xaj nga ci waaw ñu ngi leen di ñaanal nag seen taxawaay dëgër te yàgg lool yàlla dolli kattan bu ñu ko mën a mën defaree ba yàggale ko fu fu fu kawe seen njort beneen bi ci des mooy infirmerie bi nga ci tudd muy loo xam ne mënut a ñàkk mënuta ñàkk ci jumaa ji eh, te néewaan na aussi looy dem ci ci bërëbu jaamukaayu yàlla bu toll nii fekk ko fa xëy na duñ ko xalaat wala nangam loolu dama defe ne ñoom li leen ci lu leen ci xiir ba ñu def ko wala li leen inspiré ba ñu def ko mooy baaxub yàlla ak liggéey bu sellub Cheikhul Khadim waaw ndaxte loolu vraiment lu man bi ma fi njëkkee dugg daf dama am dama damaa yéemu daal parce que du loo fiy xaar waaye boo ko seetee ba seet du mënu fee ñàkk ndaxte ku ne gis na ne fii àjjuma bi surtout ci weeru koor yi ak tàngaay bi mu tàng bu ñu sërmalee nit ñi dañuy daanu xam léegi nag ñooñu nga am foo leen làq defal leen li ñuy wax premier soin rek dañuy daal di euh, nekkaat ànd ak seen sago pour ñibbi ñi nga xamante ne ni xëy na yàlla mayu leen ñu mën a ànd seen sago ñu defal leen permission yi évacuer leen ñooñu day aussi day yombal faj ma fa ñu jëm te day mettre seen vie lu ñuy wax hors de danger maanaam euh, vraiment lu am solo la loo xamante ni ñu ngi ci woor nañu ci depuis ay ànd ak ngi ñii ñu ci ànd ak moom. ci lépp lu ñu man ci ci ci wàllu màggal Tuubaa bu ñëwee dañuy da man ci boppam maa koy coordonné yu pharmaciens yi def ci ay ay ay ay ay kii ay ay participation yu am solo ci wàllu garab loolu weeso tamit euh, tàmbali nañ euh, ci euh, njiital Cheikh Abdoulaat mi ci ànd koog district bi district bi chaque vendredi dañuy indi seen équipe ñun tamit ñu indi fi kenn koo xam ne ni ci ñun lay bokk nga xam ne dina mën a saytu garab yi bu fekkee lenn manqué na fi wala lu ñu yittewoo ci loo xamante ni mënu fee ñàkk ñu fexe nu mu fi amee loolu daal ñu ngi ci di ñaan yàlla nag euh, liggéey bi mu mu mu mu mu law te jëm ca kanam ba ñun tamit fu ñu ko bëgg a yeggale ñu ñu yeggale ko parce que liggéeyal sëñ bi rek moo ñu tax a jug te loolu rek moo ñu ci ñor nekk waaw ñu ngi leen ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm. S'il vous plaît, vous vous Euh, merci. Bon, pour résumer, je dis que je suis le président euh, des pharmaciens de la région de Diourbel. Donc, je suis accompagné d'une petite délégation composée du secrétaire général, Dr Adjuma Diouf, du président de la commission scientifique, Dr Modian Faye, et du président de la commission euh, sociale, docteur Djiri Donc, nous sommes euh, encore une fois venus cette année commémorer avec euh, la Daïra Mouhadamatul Khitma, sept journées de, de, de, de prière, euh, de partage, de communion avec les musulmans euh, de la ville, avec les musulmans du Sénégal, qui sont venus donc euh, faire la prière de, de, euh, de Taksan avec, au niveau de la Grande Mosquée, recueillir des enseignements euh, à travers les, la, les causeries qui, qui, qui, sont organisées chaque jour euh, durant tout le mois de Ramadan des causeries d'une importance capitale, d'une importance vraiment euh, incommensurable. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et ensuite, euh, nous avons partagé avec la Daïra et l'ensemble du corps médical de la ville, c'est-à-dire les, les, structures médicales, il y a les médecins, euh, il y a les techniciens supérieurs, il y a aussi des, pharmaciens. nous, nous sommes mis autour de la table pour partager quand même le, le iftar, le, euh, euh, le ndogu. Et vraiment un ndogu royal euh, à la manière de Muhaddamatul Khidma. Donc c'est vraiment important parce que nous, nous partageons avec aussi des, des, milliers ou bien des centaines de musulmans. Euh, et ça, ceci durant tout le mois de Ramadan. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de, particulier ici dans la ville, quelque chose de, de très normal parce qu'ici, ce qu'on sait, c'est le partage. c'est l'entraide entre, entre musulmans. Donc c'est vraiment quelque chose que nous saluons à sa juste valeur. Et l'autre chose, c'est qu'il euh, y a l'infirmerie ici dans la grande mosquée, quelque chose de vraiment bien pensé, parce qu'une structure euh, religieuse qui rassemble à chaque prière de vendredi des milliers et des milliers de fidèles, nécessite quand même euh, d'avoir une infirmerie qui portera au premier secours les, les gens qui en ont besoin, c'est-à-dire les évanouis, les, les, les voilà, c'est ce qui ont piqué des crises, ainsi de suite. On les, on les, on les fait admis au niveau de, de l'infirmerie, on les donne les premiers soins et ensuite, c'est ce qui, on, ce qui nécessite quand même d'être évacué, on les évacue et, euh, pour mettre leur vie hors de danger. Donc c'est grosso nous en tout cas euh, en tant que pharmacien nous avons été interpellés dans ce sens par euh, Serigne de Moukhadamatul Khidma euh, quelque chose que nous saluons et depuis lors on, œuvre pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice euh, sur le plan des, des médicaments, sur le plan de la gestion des stocks du médicament dans, dans l'infirmerie. Donc là aussi, c'est le métier du pharmacien. Et vraiment, on est en train de, de faire ce qu'on qu peut, euh, et en espérant que vraiment Dieu nous prêtera longue vie et nous assistera pour qu'on puisse faire davantage ce que nous sommes en train de faire. merci beaucoup merci beaucoup jërëjëf macha allah kaddu yi am na solo lool macha allah kaddu yu am taalibe la kaddu yu jullite kaddu yu résumé yu bëree bëri kaddu yu borom xam-xam ku am yéene ci li muy wax to xam ko bu baax baax a baax jërëjëf ñu ngi leen di gën a a loxo bu baax a baax ngir ñu ànd ñun ñëpp booloo liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi rawat na ci jumaam ju sell ji na ci li nga xam moo di ak njabootam te mooy ay taalibeem wala jullit ñëpp incha allah jërë a yokk